العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وخلبي ارشدا وجرني برداك ورضا خير الورى حتى أصير مرتضى مكي كلفة بيوح لن يدن ngir ñu taatal ci ay kàddoom lan la bëgg a wax ah, mbokki Touba Ngali Xumma ñoo ngi yëkkati kàddu yu nuyoo yoo xamee ni njëlbeen gi jàmm la digg bi di yërmande mujj gi di barke di assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu nuyoo bi ñuy yëkkati ci turu Sëriñ Mamor Mbàkke Murtada mi nga xamee ni mooy président université Cheikh Ahmadou Bamba ci turu Serigne Saleh Mbacke Mourtada mi nga xamee ni mooy directeur général institut Al-Azhar Sénégal bi te seen loxo ndeyjoor seen mbokk mu tedd mii tooge seen toogaay yor seen kaddu doxe seeni jéego ba ak si fii tey ci Touba Galek Ouma di Serigne Harouna Mbacké Mourtada hafizahullahu wa raahu mi nga ni tey mooy jëmmi Cheikh mooy jëmmi Maulana Cheikh fii ci jataay ñuy tàmbalee nuyoo bi ci sëriñ bi di ko ndokkeel bu baax di ko masaw bu baax coono yi ak yoon wi ak di ko jaajëfal te di ko ñaanal yàlla suñu borom àggaleel ko yéenéen ci toolu Cheikh Mouhamadul Mourtada mu bàyyi ko Touba ci kàddug sëriñ Saalih Mbàkke Murtada ngir war a ñëw gunge si waa Touba Ngalick Umma mii nga xamee ni sëriñ Basiiru Jaañ mii di jëwriñ ji ànd koog ak Oustaz Maxtaar Njaga Jóob mii nga xamee mooy directeur bi ak Oustaz yi ñu nekkal ci daara ji al Oustaz Moodu yaa sayda Zeynab Fall ak yaa sayda maam Kama sëriñ bi nag ñëw wéttali ñu wéttali leen ngir daara ji nga xamee ni dafa bokk ci meññet meññet ñi nga xamee ni li Cheikh Murtada jiyoon te jëmbatoon ko ci réew mi ak ci bitim réew meññ na ba ak si fii ci nganit kumba sëriñ basiru ak serigne matar ak mbokki nganit kumba yëpp daal di kat suñu daara ji da xamé ni meññet la ci tolo cheikh murtada bi dañ ko bëgg duppé suñu kilifa bu tedd ga serigne maganna biran khumma rahmatullahi alayhi wa radiyallahu anhu bokkoon ci jàmbaari Mawlana Cheikh Ahmadul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba yi nekkoon ci tund yi muy loo xamee ni dañoo jaar fa Alasar di jaar ndax tey boo demee ndaam mooy ndey école yëpp ña ngi ko duppee Cheikhuna Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul boo demee Kaolack ña ngi ko duppee Serigne Modou Moustapha rahmatullahi alayhi nga dem Dakar ñang ko duppé Serigne Fallou bakki nga dem Saint-Louis ñang ko duppé Cheikh Abdoul Ahad nga dem Louga ñu duppé ko Cheikh Abdoul Qadir nga dem Thiès ñu duppé ko Cheikh Mouhamadul Bachir Serigne Bachir waye nga ñew ngaay gi ñu duppé ko Cheikh Ahmadou Mbacke Gaïndé Fatma kon noonu la wëri ci mbooleem école yu mag yépp ci réew mi foo ci dem rek jël nañu jëm jo xamé ni marqué na histoire ko ba ñu duppé ko daaré ndax lan ndax tout tànk yi mën a histoire jëm ju tedd jooju kon ku yewoo ngëli kumba ak liko wër ci kanam tuuti da nga am lu leer nañ da nga am histoire bu leer ci suñu maam ju tedd maam Gana Birame Xuma radiyallahu anhu kon ñuy nuyu Serigne Bassirou di nuyu al Oustaz Makhtar al Oustaz ak ñi ne ci daara ji ak équipe bii nga xamee ni dañoo ñëw wettili Serigne bi al Oustaz Serigne Fallou Amar ñu bokk nekk fële ca daara mu yore commission sociale al oustaz Mouhamadul Amin Fall Baara moom tam ñu bokk nekk ca daara ja dafa yëngu ngaay nexe al oustaz Mouhamed Bopp yore école bii nekk njukki Pekes ci sëriñ Modou Rokhaya ànd ak sëriñ Cheikh Mbacke mu sëriñ Modou Rokhaya al oustaz Mbay Aan bàyyi ko depuis Ndiéré Mbay al oustaz Biram Thioune ak mboolem oustaz yi nga xamé ni ñoo ne ci tund wii tund kadior wi te nek ci bir Al-Azhar ba sax genn Al-Azhar nañu ngir anda ak waa ko ma bis bu mag bi nga xamé ni amuñu lu upp bis bi tay kon dañuy sant yalla bu baax serigne bi kaddu yi kaddu serigne bi la dañuy ubbil serigne bi rek ngir mu mëna jottali kàddu gi ko Serigne Saliou jox ak Serigne Mamor li ñuy ubbile Serigne bi mooy Serigne bi mbokk yii di waa Ngari Kumba yàlla dafa dogal ñuy dëkku diine di dëkku taalibe di dëkku mag ñu baax waaye liggéeyam Cheikh Mourtada bii nag ginnaaw Cheikh Mourtada moo waxoon ca tim ñi bëgg naa fu pénc nekk fu garabu ci nekk ma sam fa moo tax fukki région yi ak ñeent Sénégal gépp foofa dem fekk fa al soo génnee Sénégal boo demee Gambie nga dem Gabon nga dem Cameroun nga génn Afrique Côte génn Afrique dem France dem Italie ba Amérique foo ci dem fekk fa daaray Cheikh Mouhamadul Mourtada kon lawtan googee moo law ba si fii ci Touba Ngale Kouma ñoom nag ren jii la ñu laxasaayu ànd mag ñi ndaw ñi góor ñi jigéen ngir fas yéenee bokk ci liggéeyam Cheikh Mourtada bii bii nga xamee ni waajur moom moo ko dénkoon laka mataa bi sukrin wayda yaa waasian wasaxtali bi Mourtada Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul moo ñaanoon boromam Cheikh Mourtada mii yaatalal ko liggéeyam islam bi ba mu wër adduna bi yëpp loolu nag agsi na fii ci ngari komma ñu ñëw nag daal ci ndigalu Serigne Saliou dañuy ñëw Ada wu ci établissement Al Azhar waaye jaare ko ci centre Cheikh Amadou Mbacké Gaïndé Fatma bii ci Ngaye nga xam ne ñi ngi ko fondé en 1979 yaa dogal tey jii mu boot lu toll ci juróom-benn fukki village ak ñett juróom-benn fukki village ak ñett bi maanaam juróom-benn fukki école ak ñett ñoo centre Cheikh Amadou lu ëpp juróom-ñaari junniy donga ak lu ñu nekk ci gox bi di sàkku xam-xam ah sëriñ bi mbokk yi di war ngari bi ñuy ñëw dañoo indaale pas-pas boo xamee ni ñëw na da gis ko kuy door a ci liggéey bu mel nii liggéey ak boo xamee ni li sëriñ Saliou di wax naan liggéey bi day ku ci xaalis bàyyi bàyyi boo ma soosee daal sa dem feneen waaye fay bu yàlla nag moom nii ci loolu sëriñ dina si ñëw léegi bu ñëwee sëriñ bi ñoom bi ñu ñëwee yàlla dafa dogal barab bee ñu jàkkaarloo dañ koo liggéey ba mucc ayib muy barab bu taaru lool barab boo xamee ni suñ koy xool day mel ni nga dem Touba wala nga dem Thiès wala nga dem Ngaye wala nga dem Kaolack moom lañ koy mandaxee ci taaru gi ak yaatu gi ak rafet gi macha allah def ci liggéey bu mucc ayib boo xamee ni dañoo boole école bi ak logement nga ni ki fiy jàngale su ñëwee du tuumurante bu fekkee kër yi xam na. dañ koy bàyyi mooy ci biir daara ji mën a am liberté boppam mën a xalaat nu muy mën a saytoo daara ji kon dañoo boole daara ji ak logement bi ñuy tàmbali ñu ne kon ñun kat dañoo bëgg a def tàmbali boo xamee ni suñ ci jugee ku ñuy royaat rek di nga góorgóorlu jooy ni kon nañu recruter ñetti jàngalekat ñaar ñuy jàngale arab ak kenn kuy jàngale français ndax al dafa nekk établissement boo xamee ni soo ci nekkee tàmbalee ko préscolaire mooy jardin d'enfant ci am ñetti at ci ngay nekk di jàng ba keroog ngay am doctorat doo génn école loolu liggéey bu rëy boo xamee ni moo tax waa ngari jii ni kon ñun tam incha allah danañ fexe ba jaar ci yoon woowu moo tax ci biir Al nga ciy jàng arab di ci jàng français di ci jàng anglais nga xam ne soo demee ba sa àlluwa jeex mën ngaa bind ndeyjoor mën ngaa bind càmmoñ arab da nga ko man ginnaaw boo déggee alxuraan di nga man français di nga man anglais mbokk yi kon jeex na maanaam barab boo xamee ne day waajal nitu diine barab boo xamee ni day waajal ab citoyen bu mucc ayib boo xamee ni ëllëg mën naa jiite réew mi fee Bassirou Diomaye Faye nekk mën na faa nekk ëllëg mën naa jiite mairie bi mairie de Thiès ëllëg mën naa jiite région bi région Thiès bi ñu nekk kon Alassane ñooñu lay préparé ñooñu lay fay bu ko defee ñun wax ak yéen misaal lañ ci ndax ñun ñëpp ci daara ji lay nampe ci la ñuy juddoo li xam na ko su jéem ci lañ ko xamee kon nag mbokki Touba Ngale Kumba sëriñ bi ñu jàmbalee ñu am pas ñoo xamee ni ba ñu doolee liggéey bi ba tey tekkiwuñ seen bu baax a baax sëriñ Basiru mii ak sëriñ Maxtaar ak mboolem jàngalekat bi nekk nag di sappoo jàngalekat bi nekk ànd ak ñoom ndax jàmbaar lañu yaa Seyda ak Seyda Maam Bousso Kama mii yore français bi nga xamee ni liggéey bu rëy la moom maam ñoom dañoo innové maanaam dañoo yeesalaat système bi xale bi jàng français bii soo ko yóbbuwoon ngaay ak kay jàng français kii nekk ci sax mën na ko ndax si ndax méthode bi nga jàngalee moom moom soxna si jàmmaare lool nga xam ne day day da ngay jàpp ni kii est ce que nekkul école français rek classique classique bi fekk booba franco arabe al azhar la nekk kon loolu sëñ bi liggéey bu rëy boo xamee waa Touba Ngéli Kouma ñoo ko tàmbalee rek liggéey bi. incha allah tey ñaan nga ñaanal leen yàlla ñu door ba fu dégg Al Sénégal gépp ak bitim réew dégg fa Touba Galil te mën nañ fa ndax ni ñu tàmbalee pas-pas la ni ñu tàmbalee ngëm-ngëm la ni ñu tàmbalee jom la ni ñu tàmbalee bëgg wékk li Cheikh Mourtada ci liggéey bi la kon nag ñu ngi leen di ñaanal yàlla ci kàddu sëriñ bi ah seen sumb bii ngeen sumb yàlla na banque noos ni ko wolof di waxee yàlla àgg foo xamee ni fu ñuy déggee daara rek dégg ba daara yi ñu baal nga ko bu ko defee kon mbokk yi kàddu gi dañuy jéggulu ci guddal gi ndax waru warul àgg foofu kàddu gi lépp kàddu sëriñ bi la waaye dañ ko doon présenté daara ji rek ak markës bii ñu nekk nga xamee ni lu mat juróom-ñetti commune juróom-ñetti commune commune u Pekes commune u Mbayeen commune u Mbamba Garage commune u Mérina Dakhar commune ak yi ma fàtte yooyu yëpp comme commune boo ci dem dana fa fekk ab lim ci daaray institut Al Azhar yu Cheikh Mourtada fii ci goxu Kajoor bokkul ak la nekk Bawol bokkul la nekk Njàmbur bokkul la nekk Kafeen bokkul la nekk Sàmm kon Cheikh Modou Mourtada jërëjëf yal na yàlla dolli koy leer yal yàlla gën koo dolli ngërëm yal na yàlla gën koo dolli ndam lu kawe kawe kawe te état Sénégal nag xam nañ ko état Sénégal bii xam nañu liggéeyam Cheikh Mourtada ba tax na gouvernement bi nga xamee ci wàllu ministère éducation de l'éducation ak l'enseignement ñoo ngi épaulé di jàppale Cheikh Mourtada lañ man état yi xam nañ ko ba dañuy yebal ak mu nekk ay professeurs yu ñëw Sénégal état Égypte xam nañ ko te naaree dañuy yebal ay professeurs yu ñëw jàngale ak ay état yu bëree bëree bëri kon mbokk Touba Ngëri sëriñ bii njëkk kàddu bi di sëriñ Harouna Mbacke Mourtada di doomi soxna fi soxna yi jaar ci xam-xam mu jaar fa ba jàng lépp wala jàng ci lu bëree bëri jóge fa génn dem bitim réew fa ñuy diplômé ci réewi arab yi fa la génne rawat na dëkk bi ñuy tuddee Lubnaan muy Beyrouth Liban ak li jaasoo yu kawee kawee yoo xamee ni waxul rek sama waajur mooy Cheikh Mourtada déedéet daa dem sàkku ji xam-xam ba ay lijaasoo yu la yor lijaasa yoo xamee ni ku bëgg a dimbali aw askan xaw nga àgg dimension ci wàllu xam-xam sëriñ boobu tey moo ñëw yàlla dogal moom mooy mudiiru mahadul azhar markaz tanzul muhtadina bi nekk Touba école Al bi ngay dégg Touba ñu koy tuddee tanzul muhtadina daara ji mag jooju moom ñii mooy directeur bi jiite ko te moom koy jiite mu nekkoon daara joo xamee ni yaatuwul woon ndax cycle élémentaire rek la woon waaye léegi def na ba àgg ci cycle moyen ba secondaire ba at mu nekk day présenté ba di am ay résultats yu mucc ayib macha allah kon moom néewul man doon soxna laa rek damay toog di laaj addiya déedéet dañuy man ab soldat laa incha allah bokk ci soldat yi liggéey Cheikh Mountakha ci yoon bi mu jaahid lay nekk. ناصر لاي نيك بو خامي ني تورو شيخ مرتضى بي دينا سي تاخاو اندك سي نيك ييب غونجيل با نكو شيخ مرتضى بيغي وون ما بو كون سيرين بي نيون دي واتي سي كاد فوم دي لا جيبال كاد بي ما اجمل اللقاء اذا كان اللقاء لقاء العلم واهله لقاء الحقيقه لقاء همتي العاديه وهذا وهذه الجلسة لا تمثل إلا همة العالية السلام عليكم ورحمة الله بوكي جلدي بوكي تالبي و نقلن هم دفن في دي دينا نيخا waxtaane tuut rek ndax soo fekk leen borom yitte yu kawe boo ñëwee ci dëkk boo xam ne dëkk yitte la waa dëkk ba di borom yitte taxawal daara yitte moom neex nañoo waxal mu mel ne nag wax ji sëñ Maam Moor mi nga xam ne sëñ Maam Moor Fall li ñu jiitu wax na lépp waaye ñu ngi koy tàmbalee rek ci nuyu ki nga xam ne mooy borom dëkk bi ci jiite dëkk bi ñu ngi koy jiital ci nuyoo bi di di ci teg responsable bi nga xam ne mooy responsable daara ji di ci teg mudir al oustaz Mokhtar Diop ak naibam sëñ Modou Mbaye ak jàngalekat yi soxna Zeynabu Fall ak maam Boussa Kama mm-hmm. ñu ngi jël nuyoo boobu di wax ci tur sëñ Maamoor bi nga xam ne moo jiite liggéeyu Cheikh Mourtada bi ah, jiital ci bopp bi Cheikh sa Mbacké nga xam ne moo jiite Al Azhar yëpp nuyoo boobu maa ngi koy teg ci loxoy borom dëkk bi mu tegal ma ko ci mboolem waa dëkk bi waaye fi ñuy tàmbalee suñu kàddu mooy bu ko mooy ne liggéey eh, bi na waaw mooy ne liggéey na lool waaye li gën a jafe ci àdduna rek mooy nga bëgg a def lu baax te xamoo foo koy defee waaye loolu mooy li gën a jafe waaye bu la yàlla dimbalee nag nga def ko fi ko war a defee xam nga nga ñëw àdduna am nga ñëw àllaaxira na leer na de di ngeen def nii def ngeen ko fi ngeen ko war a defee ndax Cheikh Murtada lii nga xam ne taxawal ngeen ko tey de benn la ci daara yi nga xam ne ëpp na juróomi téeméeri daara ci réew benn la ci donc yi na téeméeri junni di wéy kon ku yàlla dimbali xiir la ci nga mën a jël sa alal lu mu tuuti muy bari nga def ko ci liggéey bi def ko ko ñu ko war a def ndax nag di Sëriñ Tuubaa waxoon rek bàyyi ci xel bu baax a baax mooy wa argabal asyaai lil amwaati raddu ila dunya maa al xayaati walaw suwaatan faqat li yamalu saalihatan tanfaahum in taqoon Sëriñ Tuubaa nee na woon kat nit bu fi ni ñi ñu fi jógee liñ gën a gën liñ gën a bëgg mooy jël si waat ci àdduna donte saala man fee jëf jëf jooju nag nit du ko mën a xam njëriñam lu mu jógee adduna amul solo li ñu am solo mooy nga def ci loo xam ne da ngay wuy gi sa borom mu continuer di wéy muy sadaqa du ku jël sa alal def ko ci liggéey bi la leer ne am nga sadaqa du jaariya mooy ëllëg gi nga xam ne lu fa waaye jëf du doy jëf ja de nga fi de waaye mooy ngay continuer yonent bi nee na woon kat fi doomu aadama jógee moom lépp may dog ba mu des ñett yi nga bàyyi fi doom ju baax te doom ju baax mënut a weesu nga jàngal wala xam-xam nga am xam bàyyi fi doom ju am xam-xam wala noo xam ne yool ba da dafay fekk muy sadaqatul jaariya yi kon képp koo xam ne jëloon nga sa dërëm bi gën a néew def ko ci liggéey bii naan leer ne am nga sadaqatul jaariya yi ndax da nga def fi nga ko war a defee ni ma la ko waxee la Cheikh Mourtada de lii mu sas fi ne ëpp na juróomi téeméeri daara di wéy waaye amu ci lenn loo xam ne njabootam ñoo ko moom kenn suñ maamoor a jëkk ka di gën a naw ba ci sama rakk di gën a ñoo ci yem jàpp kenn moomu ci dara yàllaa ko moom kon nag ku gis liggéey bu mel noonu ci gox yi ak foofu fi mën a gis ñu doon la daaree suñu na la leer na loo ci def def nga fekk nga ko ci loxo yàlla loolu kon ñu ngi leen ciy soññ waaye ñu ngi ñu ci rafetlu bu baax ah, xalaat bi ngeen am ba taxawal lu mel nii defee ko ci seen doole ñu ngi leen ciy sant di wax ne kilifa yi yëg nañ ko. waa Azhar gépp yëg nañ ko hmm. ah li ñaan yàlla daal yàlla saxal leen waaye ñu ngi séentu tamit ci yéen ay résultats yoo xam ne dañ ñu ne dégg ndax ku ñëw fii gis fi jëf ji ñu ne la lii mooy année bu njëkk bi amatoo la wax ndax yombul nee yi bari na waaye nga dem ci fu ne la bii mooy année bu njëkk bi nga fekk nit ñi amee ci himma ju kawe ji hmm. day tegtale na kat hmm. seen maam ji tëdd fii borom himma ju kawe moo tax nag ay sëtam ñoo waruñoo tolloo ci himma ak ñu dul ñoom kon fi ñu leen di séntu bu soobee yàlla mooy himma ju kawe jooju nga xam ne seen maam ko sëriñ bi waaye seen maam liggéeyal na ko Sénégal liggéeyal ko diine kon buñ leen gis ci ginnaaw mukk ngalawaay kon na ngeen ànd ak jàngalekat yi fi nekk ci sëriñ ak sëriñ Muudu ak mboolem jàngalekat yi fi nekk na xam ne am ngeen ñu ñu ko mat sëkk kon na ngeen jàppale gunge leen te loolu weesuwul rek lu waay am ay taabal ay garab ak loo am pour xeeb dara andi na école bi dàq ci école yi waaw na rafet loolu nag kon loolu doy ni kon yàlla nañu yàlla nangul jëf li gën a jafe nag ni ma ko waxee léegi mooy nga bëgg a jëf lu baax def ko fi ko war a defee lu waral loolu moy serigne bi day dara ji ko sosé ndigal suñu borom la ci am ndigal kon loolu duy jaxal lu wani sos bokku tak kuy wut alal lu ñu sos yalla ko tax yalla kesse fi dara yi ag mala wax nga xamne ëpp na juroomi téeméer bu yalla taxutoon du fa àgg waye ñi ci nekk di liggéey nga xamne mo leen gëna lepp bu yalla taxutoon yéene jooju duñ ko mëna am waye dara ji mos ko rek ku fi dugg do dootoo fa bëgg a lu ko waral mooy li ko sas yàllay kese kon ñu ngi leen di soññaat ah kàddu yi jëtt guddal waaye ñu ngi soññaat di sant jàngalekat yi fi teew yëpp rek di jiitalaat ci nuyoo bi sëñ Mamour Fall bi nga xam ne moo moo nekk ci centre bi te daara yi ci gox yëpp aju ci moom maa ngi koy sant di sant ñi àndal ñëpp ci liggéey bi waaye di sant jàngalekat yi nga xam ne ñoo fi nekk ni ñu ko waxee woon léegi santaat waa dëkk bi bu baax a baax a baax di leen jotliwaat cant yi kilifa yi wax ne suñu xol sedd na lool waaye daal ca kaw ca kanam rek soobee yàlla am nañ ci yaakaar asalaamaaleykum mbokk yi jërëjëf mbokk taalibe yi ñu di nuyu bu baax di leen di jiital ci ziar bi ak nuyoo bi kilifa diine ko ñaanal suñu borom defal ko gudd fan bu ànd ak ak mbolam jabotou Cheikh abdourahman Xuma gi yëpp di ci teg cheikh de village bi Baye Bassirou Xuma di ñaanal yalla defal ko dundu fan bu ànd ak di jajeufal wa dekk bi yëpp rek mo melni dañu am ay kàddu yo xamni da dañ koy wax waaye waxuñu ko ñu ko ci tour oustaz mudou mbay waaye da koy wax ci oustaz nga xamni ñoo fi Seyda madame Kama nga xamni moy suñu jambar gi nga xam moo ñu nekkalan ci français bi do ci dem liggéey mucc ay ñu kontaan ci mom muy jambar carrément joo xamante si liggéeyam rafetlu nañ ko noppal na nit yu bari ak Sayda maam Say Fall ñoom it ñu àndal liggéey ñu ngi jàmbaar yoo xamante si seen taxawaay bu matul woon bu bari man la yor waaye nag seen taxawaay mat bu mat ma tax ñu wàññeeku mu mel ni kon dañuy njëkk ci kàddu madame Kama mu ngi moom mi ngi sant ñi nga xam ne dañu ñëwee ñu dëkk bi di fi gan njaga da koo jëlal Matar Diop teg ko ci loxoy muy bàyyi boot sare ak waa kër gi madame Talla nee na kontaan na jàppale ngeen ko téye ngeen ko yiir ngeen ko suturaal ngeen ko depuis mu ñëwee ci kër kër ga nee na sant na ñëpp gërëm na ñëpp. bu ñu ñëwee ci Seyda moom noonu nee na vraiment ndax dëkk bi jàpp nañ ko suturaal nañ rawatina ñi nga xam ni ñoom la njëriñ jëlee teg ko ci loxo mu mel maam jaara Gajaga soxna jaara Gajaga ak soxna Ngoone Jaay ak aji xuma ak xadi nga xam ni ñoom la nekkoon doon ca kër ga vraiment jéem dara manqué wu dara sant na leen gërëm na leen dina ñaanal borom dafa leen gudd fan bu ànd ngeen ñu profité rek di ziare suñu njaga waaye di ko yóbbante ziar ak ñaan ci suñu baay wala suñu maam seen Jóob ndax vraiment mag la waaye mag moo xamante si dama koo naw dama koo sopp ndax magum lislaam la depuis bi ma ñëwee ci kër gi ba léegi daf may xool ma génnee bu ma soree wala su may dem damay woo ay appel yu bari am ci sant waa kër gi yëpp di sant njaga ak i rakam waaye soxna yi dama leen gërëm cant ndax seen taxawaay ci man depuis si njaga njaga mu teew ak njaga mu bàyyi lan yemale te nit ki mu la wan bu dul jikko rek ba mu bala ngeen a def weer mu soppeeku waaye kenn ku ne ci soxna yi ba ma fi na ma ma jàppee ba tey jii dara soppeeku ci vraiment kontaan naa ci moom trop trop trop suñu jafe nag man koo bàyyi Cheikh Moutala rek moom moom moo koy moo koy ñaanal di sant waa dëkk bi yëpp xamal ñu daal ñu ngi di jox loxo dina wax ñun lépp lu mu rek dina ko def ndax jëmmi Cheikh Moutala waaye jëmmi Ndiaga ak ñi mu àndal liggéey bi yëpp ñu ngi leen sant di leen gërëm vraiment. kontaan dëgg dëgg dëgg dëgg moom la na kontaan na ndax jàppale ngeen ñu téye ngeen ñu ngeen ñu jàppale wu leen du ñu salat te kon liggéey bi day suuxee mais jàpp bi ngeen ñu jàpp téye bi ngeen ñu téye moo tax dama ko daan wax saydaa yi lépp lu mu mën ko def ndax vraiment ñii bu wax sa diggante yàlla xam ni bëgg na loo jàngul kon ñun suñ tënk laay kattan lu mu def rek ko ndax yéen amuñu seen fay di ñaanal xale yu góor ñëpp daal foofu daal dañuy tënk suñuy kàddu donc asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa Barakatuh. suñu wàcc la Cheikh Mouhamadou Moustapha Ouma ak njabootu suñu Abdourahmane Ouma gi yëpp ñi ñoom lañ ko dara jaay ñu dara jaay ko seen way bi muy sëñ Abdourahmane Ouma te bi am lu leen dab ba ñu Touba ñu jël suñu waajur yi Baye Demba Xuma mu jiite délégation bi ak Baye Xaadim Xuma ak Oustaz Makhtar Diop sëriñ bi wax ni moom rek bu ko fi teewaloon doy na sët waaye ñu àndante ci délégation bi ak mboolem daayira Ansaar bi daayira Sahadatul Tulab mboolem daayira yi nga xam ne ñoo aju ci kër sëñ bi ñoom ñu ngi fi tey àndante ak sëñ Makhtar ci liggéey bi sëriñ bi nag nee fi sant yam fara tàmbale di sant sëñ Makhtar ci daara ji ji nga xam ne jël na ko yëkkati ko dara jaar ci sëñ Abdourahmane Xuma mi nga xam ne jàpp nañ ne lu waay def ci ngarit moom nga ko defal ndax moom mooy gan kon nag sëñ Maxtaar sëñ bi nee na mi ngi sant mi ngi lay gërëm mi ngi sant mbooleem sa jàngalekat yi nga xam ne ñooy jàngal suñu njaboot yi di def ci ñoom xam-xam bu kawe gisuma ba léegi ñuy dégg bu kawe kawe kon ñu ngi leen di ñaanal ci barke sëñ ne suñu borom ñu doon seetlu ci alxuraan yàlla doon ci kenn ëppale ñoo ngi koy ñaanal jàngalekat yi di la ko ñaanal sëñ Maxtaar di ko ñaanal njaboot bi yëpp ci kàddu sëñ Moustapha Xuma ak sëñ Baye Demba Xuma sëñ Xaadim mi nga xam ni ñoo jiite délégation bi ci seen kàddu la ñuy yëkkatee kàddu yi kon ñu ngi leen jaajëfal bu baax a baax di def ci liggéey bi rek bu sëñ bi yegsee sëñ Moxtaar ak sëñ jëw yi danañ yeggale liggéey bi jërë